ikri booy ñaa la nekk moom ngeen jàkkaar lool mooy bëreg booy waalo ikri waalo la nekk moo la woon ginnaaw ndaysaan booy sibi booy waalo sibi ak waalo ñaari booy kan moo ci nekk grand kan kon arbitre bi sifleegul ba léegi <laughs> ah lii lan la waay arbitre bi sifleegul waay ndeysaan arbitre bi ngi laaj ay siisam arbitre bi ngi laaj ay siisam laaj na ay siisam arbitre bi laaj na ay siisam Père Ibou Diouf maa ngi lay nuyu di la siyaar di la màggal père ñaari xale yaa ngi noonu boy si bi moom nga jàkkaar lool booy waalo moo la woon ginnaaw père noo gisee ñaari xale yi. ñaari xale yi taxul ma xam leen sax mais xam naa daal combat bu neex la ay naataangoo lañu euh, kenn ëppul sa morom doole. cinquante cinquante daal laa wax xamuma leen bu baax na ñoom ñaar. ñoom gis nga ne doole yi tolloo. waaw doole yi tolloo nañu waaw. xeex booy sibi ak booy waalo booy waalo ngay xeex. góor mu daanu mbaa am. dox na ci kawam. Ah. waaw combat bu neex la góor mu daanu mën na ci am de. Ah. waaw ñaari xale yi ñamante lañ. combat bu neex la. daw na jàppante booy waalo père xale yi bëre ak xeex ban moo la ci gënal. waaw man bëree ma ci gënal moom. bëree bu waaw bëree bu leer. ak tuuti xeex daal. xeex bi am na solo nag. pour wut buntu daal wut bunt waaw. waaw mais xeex bu bari bi moom. bariwul njëriñ lool. bëre bi daal bëre bi daal moo ëpp avantage. waaw. waaye mystique bi xale yi favoriser nañ ko de surtout mbëri ndaw yi. man moom bu dee man sama sama man laa personnellement man ay mystique yi moom bokkul ci sama affaire. waaw man moom vraiment xale am na daal ñu ko def si bopp affaire bi ci bopp la rek ci bopp la daal. mais psychologie la rek. boo ko gëmee daal mën na la kii mais boo ko gëmul moom amul problème. père jërëjëf gis nga ñaari xale yaa ngi noonu. booy waalo ak booy sibi. booy waalo da koo ndengeeñ. da mu koy buux. booy sibi day génn saako wala déet. mat na tegal na ko Boy Waalo takk na ko yegg nañ suuf lu nar a xew génn nañ saako yi duggaat Boy Simi génne na ko jàpp na ko njëtt na ko Boy Waalo daa bëgg a forcer eh, xale yi jóg nañ eh, xale yi jóg nañ père xale yi bëre nañ. waaw ñaari bërekat lañ de xaw ma leen nii nii ma leen gisee moom ay ay bërekat lañ ah. ay lañ waaw. ndeysaan Boy Simi Waalo ndax Mbàkke xale yegg nañ suuf bëre wuure sa ñaari jëkkër yi Boy Simi ak Boy Waalo loo ci wax. ndeysaan Ndeye Mbacke ngi noonu ma ngay daw comme moom mbër yëpp ay séeréem lañ mbër mu ne mu ne sama séeri nekk jigéen ci biir yu góor dafa neex loo bëgg rek nax leen baab leen ne leen sama séeri booy waalo am na lu muy togg dima koy du ko may wet bi ah. waaw baaxul de wóorul wet kenn du ko may maye ah, ah, na ko daan na mooy bële moo daan. ku mi mooy booy kii. du booy waalo moo seetee ne. booy waalo lañ daan. booy waalo lañ daan. booy waalo si bi doon na booy waalo. booy si bi ah. doole doxul jàmm. doole est-ce na. boo xoolee maanaam ñaari yaram yi ñaari corpulence. Oh. ngay xam ne duñ benn. Oh. seetaanu ma làmb ji mais sànq. parce que maa ngi doon wax Xaarim sànq biñ sumee ko dama kii moy daan. Euh, booy sibbi mooy daan. ay làmb ñun dañ cee. waaw ah. te lu yàgg ci diw da ngay nii. ndeysaan dëgg la. dëgg la ndeysaan booy waalo ngi noonu di ñëw. booy waalo ndaanaan la. ñàkk